Brasil. leneen basang la laajoon sax ñun ñoo bañ na ko basang gi du fi lalu Afternoon. Clique aí no Sénégal moo def ñoo imam yi nga ñoo fi di gërëm bu baax Talla Sylla ci woote bi mu woote ak ñi mu àndal Maimouna Dieng Maodo Malick Mbaye ñu ñu xam ak ñi xamul ñëpp di ñaan ci ak Muhammad li ngeen bëgg ci réew yàlla na seen yàlla jàppale mu ngeen def ndax dañoo xam loolu leer ne wax dëgg yàlla li leen yëkkati yàlla dong la kon ñuy ñaan yàlla ci mbaaxam ak màggaayam taal yaa ñi nga àndal ñëpp yàlla na leen yàlla jàppale saxar ak bàcc yàlla am na ko man na ko nit nag bu xasee ba taxaw ne liggéey ko tax ñu xool léppam mu dox ko ci kaw kon ni koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla nangu lépp salaatu wasalaam ala sayyidina mawlana wa habibina Mustafa alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu mbokk ñu fekk yëpp di jiital ci nuyoo bi délégation bi jógee ci mawlana wa cheikhna Cheikh Saliou Touré mi nga xam ne moom moo fi yor baatu yoonu murit ci dëkk bi di nuyu mboole seen imaam yi ci fekk ak borom xam-xam yi ak kuréel yi ak ndongo daara yi xam ne ñoo dalal monsieur le maire Talla Sylla kàddu ngàtt lay doon muy kàddu seede ak kàddu jaajëfal ak kàddu rafetlu initiative bu rafet bu noomul bii kàddu seede yi mooy dellu seedeel askan wi yëpp seedeel waa Sénégal ci jëmm ji nga xam ni mooy fàttaliku li ko fal mooy peuple bi ndax xam ngeen ni maire domination mais population ñoo koy fal comme député te na ñoo xam ni bu ñeen falee ñu fàttali leen fal waaye léegi la ñuy ñëw man ak sama xarit sëñ Abdoulaye Diop Abdoulaye Diop mi nga xam ne moom fi teewal forum civil muy wax ni mosul dem ci meeting ndax ñëpp xam nañu ñoom dañoo nëtt ci lépp di saytu lépp di gëstu lépp di atte di joxe seen xalaat ci réew mi man mii di wax ak yéen mosuma teg sama tànk ci meeting waaye jëmm ji woote tey dafa askan wi te ñun ñu kenn ci askan wi askan wi ñor ñu lool man ak moom lu bëri tënkuñu boole ñu ndax ñoo bokk fuñ màggee bokk suñu Cees bokk Sëriñ Tuubaa bokk at muñu gane àddina bokk suñu ñaari waajur yi nga xam ni guddeeg bëccëg ñooy ànd boobaag léegi ëpp na ñeent fukki at waaye bokk bëgg askan wi nga xam ni mu ñoom la war tey kon sëriñ Talla jaadu na boo wootee wootee bi nga jëmale ko ci askan wi ku askan wi ñor war na kon loolu moo tax ñu wuy si la di ziare sunu sëriñ bi nga àndal mu sëñ Mbusoobe di kenn ci yow ñëpp xam ko yow ëpp na fukki at ak juróom fuñ na gis gis ko sawet looy woote mu wétti la ca jàppale ba muy neex ba muy naqari ba muy jafe maa ngi nuyu délégation bi nga xam ni ñoo fi teewal suñu xarit suñu soppe sëriñ Xaadim Gaye Lo ak délégation bi nga xam ni ñoo fi teewal daara alquran yi ak délégation yi xam ni ñoo fi teewal kuréelu imam yi sëriñ daal ñu ngi lay encouragé ñu ngi lay félicité ci initiative bu noble bu rafet bii ñu ngi ñaan yàlla li nga bëgg ci askan wi ak li nga bëggal askan wi ak fi nga bëgg a jëme yàlla jàppale la ci yow balal ko defe naa ne wooteem ndaje mu mel nii ci biir nit ñi mel nii yombul te y a des présences ci fii ndax nag Thiès xamante nañ bu baax kilifa yi fi toog muy kilifa diine muy kilifa aada muy ay notable muy mouvement de jeunesse muy groupement de femmes yi loolu mooy tënk askanu Thiès tey nag monsieur le maire su wootee ne dañuy fal askan bi mbir mi du mbiru Thiès mbiru Sénégal yëpp la moom askanu Sénégal la bëgg ñu fal ko tàmbalee ko nag ci askanu Thiès kon nag monsieur le maire soo wootee lu mel nii ñun dañuy taxaw sa boo geesoo gis ñu ñu taxaw sa ndeyjoor taxaw sa càmmoñ taxaw sa kanam taxaw sa ginnaaw ndax nag Cees xam nañ ñu bu baax ne ñun du ñuy waxante ñuy saluer la présence de madame le maire aux côtés du maire Talla Sylla Maïmouna Dieng muy une dame bu am passé bu am fula am fayda madame le maire ñu ngi lay encouragé yow aussi doo wéet ci sa taxawaay ñuy wax aussi que ni maire Talla Sylla wala muy la personne de Talla Sylla su wootee askanu Sénégal yëpp dañoo war a ndax ñëpp xam nañ ne njëriñu askan bi rek moo ci mën a génne tax nag tey Sénégal dañoo soxla ay nit ñu mel ni Talla Sylla ci jikko ci xam-xam ci yar ak ci takku taxawu soxla askan bi dañoo soxla lool askanu Thiès nag. am nañu maire nañu am fulla am fayda ba kenn bu ñu ko yàqal donc taale boo wootee lii ni fal askan wi fal askan wi waxoon ni nañu fal nit ki waxoon ni ñëw leen fal ma danga ñu fal askan wi loolu déggin la ni ko war a déggee mooy fexe ba lépp lu ñuy def ci am pal ñu fexe ba ku ñu mën di fal même bu fekkente ni àndu ñoo yow mais boo faroo ñu fexe askan wi nekk ci say soxla nekk ci sa préoccupation nekk ci li nga xamante ni moo lay guddil moo lay bëccëgal yaakaar naa ni ñun en tout cas man ci turu mouvement conscience citoyenne gëm sa bopp laa jëlee kàddu bi di la encouragé bu baax. di félicité ñi nga kan àndal ñëpp di wax ni ñun li ñu mus a ñor mooy askan duñ ko tayee duñ ko bàyyi duñ ko fàtte ginnaaw bu ñu nekkee nag ci moment bi nga xamante ni dañu ni national war a waxtaan ñu gëm ni àdduna bi dara xeex mayeetu ko fi ñun Thiès dañoo xeex ak xeex ak xeex à force xeex dañoo xeex bay xeex suñu bopp ñun ñu war a seet suñu bopp xam ni nit mën nay bañ la bañ da koy bañ as gor la muy bañ da koy bañ mais mën na ko régler te du xeex te du xiiroo te du ŋaayoo donc yaakaar naa ni monsieur le maire ñu lay encourager bu baax di ni la. sama relation ak yow tax na tey sama der fii rek la jekkoon ragal ma fee bañ a teew ma tee bañ a bañ a teew dama fee jomba bañ a teew sama diggante ak ay jomb jomb ci am asalaamaaleykum wa rahmatulah. benn seede laay indi dama ànd ak Talla Sylla ñu dem ziare ji sëñ Abdou Aziz El Amin ba ñu demee Talla ne ko. man de sëñ bi damaa bëgg a def créer benn mouvement bu ma tuddee fal askan wi bëgg la ci ñaan ndigal bëgg la ci ñaan nga defal ma ci ñaan ba yàlla def ma ci suutal mu ne ko taala sila taala sila taala sila ba mu ñett yoon loo ne man sëñ Abdou Aziz Sy maa nga ci loo bëgg wax ma ko loo ma ko bul ma rus bul ma bul am dara looy xam ne na nga koy xalaat sama diggante yow nga bañ ma ko wax loolu nekk maa ngi nii tey maa ngi toog man ak moom ak sëñ Abdou Aziz Amine rek ñun ñett ñoo toog ci saal mu wax ko lii mu ko wax kon su ñëwee taxawal lu mel nii ma dem fa dem si julli fa àjjuma mu ne ma soo demee nuyoo ma taal encouragé ma taal ne ko la ma waxoon maa nga ci kon nag sëñ bi nee na lam la waxoon mu ngi ci taal ah ñun nag dañu am benn kuréel bu ñu tuddee kër sëriñ bi sëriñ Kéré jiital ko di directeur général ànd ak Mamadou Ndiaye trésorier ñu gis liggéey bi Talla di def ci ab Nazir Dieng wax na ko fii Maodo Malick wax na ko yow kenn mënul situé ne kii Talla def na lii ñu ne xalaat nañ

suñu lañ ci dafa am ku ko wax mooy Maodo Malick Mbaye mii toog daanaka Maodo Malick Mbaye li mu wax ci président Talla Sylla du ma ci jaaraat doy na sëkk beneen bi ci des bii Serigne Mikaël Mbaye andi mu jugee ci Serigne Abdoul Aziz sunu kilifa al imnu kon daanaka bu fekkee ko wax na daanaka jërëtul ñuy wax xanaa benn baax rek muy président Talla Sylla na daral sa xel te xam ne lii nga woote muy fal askan wi askan wi dana ñu la wuy si li la ciy jox firnde mooy boo ko xoolee mboolem entité yi nekk ci réew mi ñu ngi fi toog bi nga xam ne nag moo ci gën a sama yaram mooy xale yii di yi te yàlla dogal nag man ba ma juddoo dañ maa defoon ni ñoom te yooyu jamono daawuñ bokk ci benn daje kon bu fekkee gis nañ leen si andi leen kon li mu wax ne nañ fal askan wi loolu dëgg la ci moom waaleykum salaam wa rahmatullah putul ko rey sëñ gaana ma yaasin saala juróom a jigéen monsieur bu digleen kodd lambal pax rek si dala ko rey monsieur di digleen kodd sa maam li muy dem ci la daa war waaye bi mu jël ci dañ ko sëb jeeg saala ma yaasin ajaa may mu na kaddu gaa waxal wa rahmatullahi taala wa fi te jëkk ci nuyoo bi ñi nga xamante ne ñooy imam yi ñooy évêque bi fi jógee te ngànk diine ji waaye di gërëm mbooleem ku fi teew mooy ñi bokk ci secteur informel bokk ci association société civile yi ak homme yi waaye nag di jigéen nuyoo jigéen ñi nga xamante ne ñoo fi teew tey waaye sama nuyoo du mën a jàll nag tànk nuyuwuma sama borom kër mi nga xamante ne ay taalibe Sëñ Saliou Touré lañu teew fi ànd ak délégation am moon ba tey Sëñ Saliou Mbaye maa ngi lay nuyu turu Sëñ Saliou di wax ne damay gërëm ak di sant le président Talla Sylla su ma jiitee mouvement national des femmes kon defe naa sama rôle surtout ak responsabilité mi ngi jëm ci taxawaayu jigéen ñi ci biir mouvement bi ku nekk nag xam na taxawaayu jigéen ci askan wi soo ko génnee ca kër ga dootul doon kër soo ko génnee ci dëkk bi doo mu mën dëkk waaye boo ko génnee ci mouvement bi dara du ci des kon jigéen ñi engagé wu nañu ndax man ku ma xam doo ma jeex fenn fu dul ci développement li ci des day ñëw di ko ñaanal sa ko mottali waaye man servir les femmes moom laa gëm ci loolu laa mos a nekk kon soo woowee fas askan wi. delloo si jigéen ñi seen cër bi nga xamante ne war nañ ko am ci askan wi ndax 52 pour cent de la population du lu ndaw te jigéen ñi booy xool suñu duggee ci lépp ñoom ñooy askan bi ci gën a vulnérable gën cee ñàkk gën cee ñàkk xam-xam gën cee ñàkk am-am man soo jàpp naa ne ñu war a jël si nag ñun jigéen ñi delloo si li fi war a nekk à la mooy ñu am suñu wareef ak suñu yelleef ci biir kon loolu kenn du ko xam te dama lay garantir ne am nañu parité set waaye am na lu bare lu des ci jigéen ñi kon mouvement bi yaakaar naa ne. jigéen ñi ci bopp gis nañ bopp ba nga ne askan ma jàpp na ci biir askan wi ndax booy xool ba nga ne askan wi ku tey sax bokk nañ la preuve année que yi taaliba yi ñu nii toog kon nga xam ne kenn exclure kenn ci biir mouvement bi man nag samay wax du tey damay nekk ci terrain bi di liggéey ba jigéen ñi yëpp ne ñu ngi liggéey waaye naka xel dal xam ne jigéen lu nekk Thiès ak lu nekk ak ku nekk ci lu génn Thiès parce que taxaw takku fan askan wi ànd ko yow